auzubillahi min asheytaan irajim bismillahi irahmani irahim wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala wa sahbi mbokk yi ni seetaan fu ñu mën a nekk asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu noo ngi leen di nuyu di leen ziyaar di ñaanal a cheikh mouhamadul muntaqa sunu borom yàggal ko fi te wéral ko di ko ñaanal kilifa diine yëpp ak jullit yëpp ak taalib yi mbokk yi ni ñu ko waxee woon noo ñëw fas yéene àndaat ak yéen kenn ci njabootu sëriñ bi ngir nafaraat ak dundam muy Cheikh Abdoul Khader Cheikh Abdoul mbakke nag mooy ñeenteelu xalifa Cheikhul Khadim ci diggante boo xam ne bu gàtt la waaye taxawaay bu rëy boroom dund gu fees dell moom Cheikh Abdoul Khader mu ngi feeñe ci daaru alimul xabir moom la ñuy wax ndaam fi la feeñe moom Cheikh Abdoul Khader moom it di sori 1914 ndax lim magante Cheikh Abdoul Ahad bariwul moom it way juróom wu sell wa mooy soxna Aminata Bousso soxna Aminata Kanni Bousso moom it di mbokkam ndax doomi sëriñ buso bi ma xam ne mooy lépp mu nekk koo xam ne it moom Cheikh Abdoul Khadir ku am tawféex la moom ci feeñu jamonoom ndax bi mu feeñee sëñ baa ngi njaareem sëñ bi ci boppam moo wax maam no ngir ba mu koy tuddi mu yeexal ab doxam ndax bu dem ba ba muy dellusi koo fi gis ak kum gis yàlla jéggal ko kon moom njëggalu yàlla la ëndaale jamono moom Cheikh Abdoul Khadir mu di koo xam ne it jëmmi sëriñ bi moo ko dalal jàng moo bind ci alliwaam dalal ko jàng joxaat ko sëñ daam sëñ daam jàngal ko sëñ bi wooluwaat na ko it mu ñëw bis mu laaj ko foo toll mu ne ko sóoratul xajj sëñ bi ne ko loolu de kiimaan la ndax maa ngi la woo ci sul xajja nga toll ci sóoratul xaj kon day mel ni ay ay mbir la sëñ bit joxaat na ko ndigal mu ñëwaat sëñ daam jóge faat demaat gedej sëñ Mbàkke Buso mu nekk koo xam ne it ku ko xam xam xam ne dafa nekkoon nituk sunna koo xam ne ak nituk istixaama koo xam ne mandargam sëñ Tuubaa rek la lay woon mu Cheikh Abdou Khadir ci njaxlaf gi ak doxiinu sëriñ bi ak jikko yi ba mu nekkee gedde it daawul jullee mukk farata ci këram saa yu julli ma saa jóge day jóge ci kër ga wut si ci jàkka ji nga xam ne du xàmmee naaju wala soreeb diggante bi buñ ko ko masaa waxi day ree rek ngir xam li ci nekk ci tiyaaba ak ngëneel nga xam ne eggoon na ci bu julli day jot sax dañ koy taaxeerlu ngir xam moom ci boppam fonk gum fonk jàkka ak fonk gum fonk waxtu mu di koo xam ne it moom sëñ eh, Abdul Xaadir jëkk muy nekk jataayub Sëriñ Tuubaa it bi mu noppee gis way juróom Seexul Xadiim ku fonkoon la nag koo xam ne bu ko sëñ bi masaa woolu sax am na mag ñoo xam dañ daan xaar rendez-vous sëñ sëñ sëñ Abdou Khadr ndax dañuy xam ne bis boobu moom sëñ bi ci mbégte rek lay nekk ndax cofeel gu mu am sëñ Abdou Khadr nga ne bu ko masaa gis day wane mbégteem lool bégg loolu taxoon na ba am na yenn mag yoo xam ne bu sëñ bi masaa wóolu sëñ Abdou Khadr dañ cay àndaale ngir xam ne gis sëñ bi dana yomb te tey ji sëñ bi dana dana andi ak benn noonu la toppee woon Cheikh Mamadou Moustapha moom it ku wër la ci béréb yi xam-xam yëpp nga xam ne euh, ni ma la wax léegi sëñ Mbacke bu soog sëñ Daam Abdourahmane ak sëñ Mahamoud Dem ak yéemoon ñëpp ci xam-xam ak taxawaay bu rëy bi mu amoon waaye nag mu nekkoon ku jeex ci sëriñ bi bi noppee gi sëriñ bi noonu la toppee woon Cheikh Mamadou Moustapha noonu la toppee woon Cheikh Abdoul Fadal noonu la it toppee woon Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne moo toppoon ci moom nekkoon koo xam ne it li alxuraan di wax ne gaa ñi nga xam ne bu ñu tuddee yàlla seeni xol dañuy tiit te buñ jàngee aaya alxuraan mu dolli leen ak gëm yàlla tey wakkilu seen borom ñooñu ñooy way dëgg yi way gëm yi dëgg mooy Cheikh Abdoul Khadir xam ne laaya jooju boo ko dee xool ci alquran Cheikh Abdoul Khadir Mbacké nga fa nga fay fekk mu nekk koo xam ne it bu ñu waxee istixaama ca la nekkoon doon nu Sëñ Tuubaa ci waxtu wu nekk nekkoon koo xam ne it moom Cheikh Abdoul Khadir la Cheikh Abdoul Aziz da baax waxoon ne ku ragal yàlla la woon nitug sunna la woon ku jub la woon dafa mel ne bàyyam ci bëgg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak roy ko moom it waxoon na ko ci xasidaam gu neex a neex ci mel ni dafa roy Serigne waaye dafa meloon ki Serigne Touba ci bëgg euh, Euh, rasulullahi salaahu salaam sëñ Mourou Mamoun Niang defoon na ko xasidaam gu neex goo xam ne da doon wax ne ana fu ñuy giseete ku mel ni sëñ Abdou Khadir ginnaaw fu ñuy giseete ku mel ni sëñ bi ginnaaw sëñ Abdou Khadir fu ñuy giseete waxtu yi ana fu ñuy giseete ku xam ak bokk te mën koo dundal ana fu ñuy giseete koo xam ne mooy taxaw ci kanam bari yi di jiite ci ajjuma yi ana fu ñuy giseete kuy tudd doom yi fu ñuy giseete kuy jokk bokk yi ana fu ñuy giseete kuy julleeti néew yi Cheikh Abdou Khadir Mbacké mi nga xam ne moom it dafa yoroon responsabilité yu diis yu rëy te ay kilifaam doy la woon ko mu jiite jumaay Touba te jumaa jumaa ji bi mu nekkee imam lim ko mas a wute mooy bi mu demee Makkatal Mukarram waaye mosu koo wuute ba diiru bi muy ñibbi aljana wuute wu ko moom Cheikh Abdoul Khadir nekkoon koo xam ne biir këram sax jàkka da caa nekkoon saa yu waxtu nodd jotee buñ noddee bàyyi na lépp dëgmal yàlla borom subhanahu wa taala roy yonent bi alayhi salatu na muy mi sol doxiinu sallallahu alayhi wasallam bi la royoon moom arfan bi xarfin bëgg yonent bi alayhi salatu wasalam loolu it may na ko tawfiixi yonent bi feeñul na ko boppam boo xam ne nekkul ay gént yaxitatan boo demee dañ naan la pavillon baa ngi fii la rasulullahi ñëwoon ànd ak saxaaba yi feeñu si Cheikh Abdoul Khadir Mbacké loolu kon wane na ne cër bu rëy bu am ak doxiinu sell woo xam ne yàlla mayoon na ko Cheikh Abdoul Khadir mu nekkoon koo xam ne it moo jiite woon moo yoroon wàllu imaama gi nga xam ne mooy jiite ay kili ay kilifaam it doyloo woon ko ci ci kenn ku ci amum tudd ku nekk ci leer njaboot Sëñ Abdou mooy ki nga xam ne moo ko daan tuddi waaye mooy ki nga xam ne moo daan wër bokk gépp di ko dundal xàmmee woon melo yëpp ak doxin nga xam ne it nekkoon na koo xam ne ku bari woon yërmande la ak cofeel taxoon na ba daawul tëju bu daan wax ne même bu nekkee ci coono ba fatu wala mu nekk ci mën a jaar digganteem ak boromam ku jaan matt wala jigéen ju jàpp bu tolleeb diggante nañ ko nañ ko fëgg ngir yërmande jum amoon Cheikh Abdou Khadir waaye nag bokkoon na ci yërmande jooju moomoon saa yoo ko masa am wax yitte daawula lebal da lay jox ba noppi nag digaat la moom Cheikh Abdou Khadir nga xam ne taxawaay bépp nga xam ne melawu nit mën na ma sa jaaxle boo ko masa seen it bañ a mu ngay jëkk seen nekkoon koo xam ne ku bëgg Serigne Touba taxoon na ba saa yu ajju mu masa jot suba gi dana xëy si ñëw ci barab bi siyaare bu jiite jotee mu génn njaxlaf ga jël daa bemb bot ya taxawaay bu rëy ba mu noppee taxaw ñaanal jaam ñëpp moom Cheikh Abdoul Khadir nekkoon koo xam ne it mboolem ñi mu bokkal sëñ Tuubaa ñëpp ko wóolu woon doy la woon ko seen bopp doy la woon ko seen jëmm doy woon ko ci seen seen njaboot waaye umma islam bi yëpp doy la woon ko ndax yaakaar naa euh, imaamu ratib bu ndakaaru bu alaaji Maodo Sylla moo ko tuddee woon imaam yi imaam kon ñi nekk ay imaam ñoo xamoon ne moom mooy imaam yi imaam yi moom Cheikh Abdoul Khadir waaye makarimul axlaax moo nekkoon ci moom mooy boole woon lewet boole woon tabe boole woon toroxlu boole rafet jikko moom Cheikh Abdoul Khadir Mbacké nga xam ne du am dara lu muy mer lu dul lu naqari yàlla waaye ko amoon coloré nag am coloré googu danaa ci nettali dara dafa am bis mu jëm ab dëkk moom Cheikh moom Cheikh Abdoul Khadir saxaar gi bi mu duggee am koo xam ne dafa gis Cheikh Abdoul jox ko place am jamono dem ba gëjee kooku gëjee gis Cheikh Abdoul Khadir ba kooko wàcc ab liggéey ñu war koo taxaw Cheikh Abdoul Khadir yónnee ci kilifaam na ko da am sa teel bi bu wàcc nañ ko dem ba ginaaw takkusaan ndax dama ko bëgg a taxawee takkusaan sëñ Abdou Khadre ñëwal boppam taxawu ko ba noppi daal di wax ne moom mii de damaa mas am ñu dugg saxaar mu jël place am jox ma ko fasante ak man kóllëre te man ku fasante ak man kóllëre bu soog ruudee génn adduna sama borom daf ma koy xamal waaye tey jii dinaa ko wutal place boo xam ne sëriñam mënu ko moom mii mënulu ko boppam man mii maa ko wutal kon loolu xoola googu sàmm ko kóllëre ak doxin boo xam nekkoon na sëñ Abdou Khadre Mbacké kon nag moom it borom taxawaay bu rëy la woon melawu sell la woon ku nuru woon sëñ Tuubaa la nag ci jëmmam nga xam ne Eh, ku mas a gis Serigne Touba mag ñi masoon a gis Serigne Touba xamoon Serigne Touba mun masaa gis Cheikh Abdou Khadir ci njaxlaf gi ak doxin wi dañuy xam ne ñoom kii nu gis tey mooy kookee nu gisoon rek mooy Cheikh Abdou Khadir borom Baxdaad bi nga xam ne moom it noonu la tuutoo Serigne Touba toog ci jataay bi moom it diggante bu gàtt ndax 89 eh, la fi suñu blaat jóge te moom moom 90 daanaka day mel ni eh, fukki weer ak benn weesu ko ci mu wutu ko sëriñ bi waaye xoola jëf yu rëy yi mu fi taxawe ak la ko jiitu woon ci dundam gépp wax naa la mës sa dallu mës la noppalu waaye la muy yàggadi yàggadi la ko war lu nekk jëf na ko ci toolub sëriñ Tuubaa moom it noonu la sancee dëkkam boo demee da ngay dem Bustaan boo demee da ngay dem Baxdaad dëkk yu ci nekk sanc ay dëkk yoo xam ne it liggéey ak yàlla rek la ci nekkoon boole sàmm boole taxaw guddi di naafila boole di jiite jàkka yi boole di taxaw nit ñi di leen yërëm ñoom ñëpp kooku it mooy it Cheikh Abdoul Khadir yàlla na ko yàlla fayal salaam